ba ne ko may ma ko man Xaadimu Rasuul sunu borom may na ma loo xam ne gétti na Abdul Xaadir Jilaani waye mang koy ñaanal yàlla ko yàlla dolli ay ngërëm mom Abdul Xaadir Jilaani ilayya qutta ma bihi Abul Hasan neral nekkon ci Abul Hasan as-sazili sunu borom jox na ma ko faaqa bi xidmati nabi jaddil Hasan lamu amawon nak nag liggéey ko ci liggéey rasulaay jaddil Hasan mi maami Hasan man khadim rasulun borom jox tamam tali bima bi tijani neral la nga xamne mo nekkon ci cheikhou tidiane sunu borom motti na ko jox ma man Xaadimu Rasuul sunu borom may na ma loo xam ne gàcceel na wurusu marjaan lii xutama zahaza an miyat danas yàlla may na ma loo xam ne moo setal ci man tilim surtout qadimal mustafa misla anas doon naa liggéey katub rasulay mel naa ni anas